yokkuteb courant bi nga xamante ne ni moom la nguur gi fas yéene def ci ndoxteelu weer ab décembre bi nekk na ab mbetteel ci askan wi tax ñenn ci ñoom di ko naqarlu. loolu moom bu amee moom dinañu dinañu bett lool parce que ñun xaaruñu lool dañuy xaar kay bu gën a wàññeeku mais xaaruñu bu gën a yokk. waaw parce que ñun ñi njaboot fii maam nit ñi dañoo sonn. waaw benn parti moom yëguñu dara mais benn parti moom sonn nañu. gi métti na si ñëpp parce que même fii nii ñun marché bi sumbe ñun sax dañuy utiliser courant ak ci kër yeeg yëpp loolu moom bu nekkee tamit day nekk lu métti daal. dëkk bi fu mu toll nii war nañu xool ni ñuy yokkee courant bi si yan yan yan yan nit lañ ko mën a jox parce que foo xoolee fii am na ñoo xam ne pour ñu fay benn courant sax problème la. courant bi da nga ko du yoon ñu yokk quoi parce que population bi doon sonn. Mamadou Niang bi les étudiants ñu taseel foofu ca Gueule tapé. di ñu xamal ni njëgub courant bi ngir mu mën a wàññeeku ci mim réew faw gouvernement bi di sukkandiku ci jant bi wala loolee ñuy woowee énergie éolienne. léegi dañoo war a xam ni ñu ngi vingt et siècle gars yi pourquoi ñu accenté wu ci énergie renouvelable pétrole ak yooyu alors que énergie éolienne mi ngi fi day joxe courant énergie euh, solaire mi fi day joxe courant pourquoi Sénégal toujours Ami États-Unis biñ ci commencé ay yeneen dëkk yi ñun ñëpp boo demee en Europe avancé nañ ci de telle sorte que gars yi jëleetuñu courant bi ci énergie kii renouvelable ñu ngi koy jëlee énergie éolienne wala ci jant bi ñun fii Afrique saw jant am nañu jant am nañu aussi éolienne bi pourquoi ñuy ñu retardé wu ci feenee parce que foofu c'est gratuit mën nañu dem bay utiliser courant ci gratuité et tout ça. bu dee ñenn ñi ñu app yokkute ci seen ab facture ab courant gu mujj ña ca des moom yëg nañ ko ak doole. man nag wax dëgg yàlla facture bi ma mujjee jot euh, sentiruma ci yokkute comme yi ma li ma daan fay daal xam naa ne sorewuñu daal. facture yi ma mujjee jot boobu moom bon gisuma ci yokkute quoi boobu moom c'est normal. facture ñun dañoo seetlu fii Sénégal man d'habitude damay consulter facture. chaque jour day gën di yokk moom même bu ñu waxee yokk ak bu ñu waxul yokk saa yu ñëwee bii ñëw day day jéggi dayoo. mois bii passé nii rek sunu kër man maa ngi fay ay trente sept mille et quelque te boo xoolee benn télé lañ fa am benn frigo ak ay quelques lampes bariwul amul ventilo sax buy daw nga fay ay trent sept mille et quelque mois bii nii rek ñu génn loolu aussi dafa cher si koo xam ne ne. da nga yor ay xalé ak yoyu nonu xam nga di wara daan doole ak yoyu mun dal lu mu gëna mëna wañé ko dal dinañu gëna gënal. yokkuteb courant bi taxna na bile askan di sakku yermandé ci gouvernement bi. nañ ñu dimbale rek ci ñu yok facture mu baña 6 pour cent yi bañ a bañ a dëgër daal. mënuñu mënuñu tëb ne dañuy euh, courant bi ba paré ñu tayal fi ñuy dund ñoom di di di gëna di gëna a améliorer di gëna di gëna yok kon loolu mul nekk. am pétrole am gaz am or. waaw loolu yoon na ñu yokk nag da dana war a yërëm askan ni ñuy wàññi. li ñuy dawalee yërmande mooy développer leneen lu dul jëlee courant feneen fu dul ci énergie renouvelable ay pétrole ak yooyu nañ dem ci accenté wu jéem a xool ci énergie euh, éolienne bi mi ngi fi énergie solaire a fi voilà comme ça faciliter mën a am gars yi mën a dund ci stabilité.